meilleure agence de voyage bi ñëpp doon wër EBG voyage moo leen di may seen EBG Voyage. EBG Voyage, c'est des ventes de billets d'avion, attestation de billets, réservation d'hôtel, assistance visa, pré-inscription à l'étranger, Hajj, Omra, Ziara Fez, assurance de voyage et automobile. EBG Voyage. Nous sommes à Norfoire, à côté de Yum Yum. Téléphone 77 686 33 33 ou 33 801 98 14. Notre mail service.ebg.gmail.com Envoyer de l'argent au Sénégal depuis l'Europe et le Royaume-Uni avec ta vos proches reçoivent l'argent directement sur leur compte Wave. C'est rapide et il n'y a pas de frais de retrait. Chez TapTapSend, la sécurité et la rapidité de vos transactions sont notre priorité. Qu'attendez-vous Effectuez vos transferts maintenant. rasul fii yaatu na de yow rek yaa fi nekk ñeme nga wéetaay de. tontu xam nga ne su ma wéetee lépp ak sa xujj googu la lépp ak moom su ma sañoon bu doon mën ak man kese sama doom sama wet lay nekk waxal ak moom. ah yaayam de loolu la ci jublu waaye dafa desee xam ne doomu aadama kenn mënu koo xaaj ñaar waaye man nag ginnaaw fexe nga ba ma gis xujja. déet déet déet la da ngay tàggoo pare guñ ci am na ñu war di jënti man ak yow liggéey dem waajaguma sax waajumaa dem dëkk ba tey ndax li may lijjanti sotteegul fexe nga ba ma gis kujja noonu laa bëgg nga def ba ma gis dégg lan non noon non non non tante bu yowoo wax jooju nga teg ko ci suuf léegi léegi déggan fa mu ne moo fa bàyyi boppam hmm. moo jël si moo jël décision boppam jël xalaatu boppam xawma lan moo ko jàpp mu ne may disparaître bu demee nag ba xélam yeddat ko pour mu feeñaat nit ñi gis ko dina ko def. ma dugg de loolu bul wax lolu fa mu nekk xam nañ la ko fa ba dama bëgg nga dem wëri ko gis ko mu ñëw ñu tok ñu wax donté mom ci bopam xamul lu xew té yow mi xam muso xamné mom ak kujja am na lu ñu bokk. mais exactement fofu la waron taxawé mu tey mu déglu ba ñu expliquer ko mu laajte ñu waxo mais parce que mer na aalu topp ay xolam xamul ah jékki-jékki disparaître dem toog man ak lan laa deful pour gisaat dégg ngay def nii amoo ñu la ko defal ci kër gi ah. maanaam bu ko rek yow. maa toog ba sonn. Ah, léegi rek. Hmm. <laughs> yaa may rek. dara wallaay dama am loo xam ne su ma la ko joxee tey. xam hmm. guy. ยาตะเลยด้วยเบิ่งก็ขาลสินักมันก็ลิปโล้อสักขาลสักไปแต่ก็มันต้องมาเบิ่งก็ขาลมันก็ส่งไปหลายหลายเยาตวละเด็กก็มาเบิ่งขาลหลายเลยจนลำบึ้งครับลำลาขลาดมันได้เงินได้ขาลสิอันนั้นเราก็ดักนักมันก็ดักเราเลิกเอามุกคนใหญ n'est-ce pas yaa ma waxoon doomu gor su fajee gàccee rek wàcc na. waaw ndax sama bi may dund moo ñu ko daan wax. yaa ngi fàttaliku góor gi alaaj ñag ba mu ñu génnee këram ndax ñetti weer lu yaas. lu ma ko mës a fàtte ndax bis bu metti la woon bëgguma ko sax a dégg loolu bëgguma woon sax nga ma koy fàttali ndaxte allaaj ñam ba mu ñuy toroxal maa ngi la ko boole wax ñu wax ñàkk kersa wax ju bon lu ne mu wax ñu ko mu metti woon lool bis boobu teel la Aida Sow ñaane baat kon du bis bu neex këram boobu ñu génne woon laa fas yéene jënd tey hmm. alaaj na moo la nangoo jaay këram boobu effort bi ma def ba gisaat xujja effort bu ko raw laa def pour gisaat déggan ah du gendarmerie du sapeur pompier du police du hôpital du cimetière du morgue du dara lu ma bàyyi maintenant aw ma benn résultat gis nga fa mu nekk man xaw ma fan la duma ko seeti duma ma ko jël hmm. nañ ñëwaatal boppam bul wax loolu ndax gis nga xujja ci boppam moom dafa jàpp ne yow mii yaa féewale mbokkul gi loolu laa nanguwul mu ma koy accuser di ko jël di ko teg ci sama ndodd bi gis nga tante yow xam nga lépp ni mu demee gis dama bëgg nga ba xujja mu bàyyi di ma accuser ci loo xam ne xamul si dara jalousie moko ko jàpp ma mer moko ko wala déception lu mu jot rek soti mako mais yow xam nga ni mu démé yeguma ma les ma waxal ak moom. léegi nag coow li fay moy dégen tok xujja tok nga tok ma tok ñu wax wax ji carte sur table mu leer nañ dégg wax ji da lool la. mais la. ci hmm? fu jëm ak faaw nga de. noonu de kër gi du kër laaj ñan kër googu kër doomu jiitlem la doomu jiitlem bu jigéen di gel ci alaaji alaaji sama alaaji mi waxtaan nañ mag moom fas yéene naa jënd kër gi ci moom ci fukki million ak ñaar te kër googu bu soobee yàlla dinaa ko jënd def ci sa tur Aji Tani mom yag na di si rendez-vous mu demoon boobu ba léegi ñu xaar tamit dafa guddi de. danga fàtte Dani ciow jiwut ci mom te fu mu yàgg rek xaaliss moko fa yakal gis nga bu jotone xaaliss le nga gis ko fi mu ne yëndu ciow du jiw nañ ko lu rek graw yow wuy ma mu jek sama waji waxon na la mom la pap Omar la mom la sama papa génne won foofu mu amal location 3 mois ne du ko fay moo ñu ko kay njabotam fofu la. <laughs> yalla ay nak mais ya, loolu bu loolu bu amé sa papa dina am gàcce dé imagine nga toroxal nit génn ko ci kër mu ñu jënd kër ga da fay graw légui no nooy def instant ya, bi dañuy dem ci notaire bi dem signé ñi acte de vente bi su ko defee njokk ko kay kër gi mu jox ñu suñu xaalis sunu man dox mo bëgg la yow Oula, ma chère, qu'est-ce que tu fais ici? ah yow fi man et là tu me poses la question de la fille. bah oui parce qu'actuellement, tu devais être derrière Je hein? non Je man fille. Je suis Je café. man mais li ko waral chef d'esprit boo sax maa fi nekkoon di jooy sama jëkkër ji day nelaw mais ayam mbii nii gaa gaa fi ne xoole bu metti lay jooy moo yëy nag lii ma gis waaw moo yëy yeewu nag bari non mais attends waa lii caabi lan la ah ngir yàlla rek la ko ñaan sama kër gi bés bu ko joxee rek seet ma si. Kumba bàyyi ma. ba pare leer na ma ne nekk à sept wax ak sa faru tubaab yi rek. non même pas xoolal dafa lu ma doon terminé sérieux lu ma nekk Europe quinze ans yii yëpp nekk tubaab nag nit yu ñuul yi. waaye dañ lay

nga ni. birig bàyyi li nga def waay bul def li waay li ci des. li ci des ma dem si voyage dem extérieur jàngi jiwaat. mais yow xanaa xamoon man philosophe la. ça veut dire. mais kon man man nitu Europe la man bu ma demee maa ngi bëgg a dem Europe daw ma mais boo demee ba dem voyage danga ma cee war a boole. mais foofu bu ragal parce que man su ma demee ba toog soo amee six mois dama lay lijjanti nga ñëw toog sama wet. Ah. comme nii. oui. <laughs> wax nga dëgg sax femme de science tax ma aw ma passeport. la jëlal loolu. boo ma ma liggéey. yaa may dégg te sene na la yéen baax xool ma maag sama doo génn ci li nga nekk. sama mag nag moo yéeg dëgg fa yàlla tey ku la am du guwaat au contraire ñàkk laa am moo tax muy guwaat nga yow mi Assane wax ne ni mu bàyyi sa bagage nee na dinaa ko wax mu bàyyi samay bagage Kumba sama nawle bee ko bind nekk te ci kër gi di ko fay weer tàkk yaay ma ne ko xoolal sama dara du sa dara boo rembee sama yére sama kaas lu mu mën ci doon fa nga ko fekk na ko fa bàyyi yow la àndal te li yee dëgg tu sais pourquoi waxal taa Omar yow tamit ne loo utal bon parce que tamit jeeg nga lii laa bëgg de man man je suis pour toi man a ngay topp yow laay topp. billaay man dama laa bëgg sama biir xol. man ma gën a bëgg. salaamaaleykum. waaw. waaw néew ma da ngay tëdd de. yàgg na. donc sebagian kenn kay du ma tëdd te yow Dua meter. la jot doo wéetal. waaw rek ma tëdd. ci la nekk. bu liggéey tëdd tàmm naa. la Kati. Dani. Kati. Iya. ah Kati ça va naa def. yaa ngi jam. jàmm. yaa ngi ci allah. Yes. maa ngi ci jam. gis nga ma nii di préparer tëdd. sama kër géer laa ko fekk. mu ma jël taxi mu ne ma araan doo jël taxi maa ngi déposé ba fa nga jëm oto bi sax fa macha allah loolu nekk baax rek koy def moom moo baax. mën ko bëggal sama bopp. rek rek de dafa baax. mau national moom man sama bopp moom moom sama xarit macha allah. yow yaa baax rek. ah non man ah, li nga def nekk xanaa yemuloo ci tàngal ndox kese. lu may def ma fekk ko waa ci wàññi moom moo xam lu jeex xam nga lu muy def heure bi tëddagul. combat bi nee na daa am ay document yu eh. muy ci la nekk noonu. ci yàlla jaaxal ngeen bi yéen. sama café bii moom xamal ni kenn du ko naan di nelaw acca vas-y ba pare sax bi hmm. xam nga lan laa lay laaj hmm. euh, comment t'as fait ba nekkoon sa yaram bi yëpp dañ waaye yow lan moo nekkoon ci ma yaram ah, yaa ko gën a xam yow fii nga ay ci man nelaw nelaw nelaw ba man damaa sax tiit. démb nelaw naa. man dama yaakaaroon ni sax tàqo dafa am lu la def ba yow dootoo mën ci dara ci man. Eh, kenn defuma dara démb du fi laa ay est-ce que nelaw na tey maa ngi nii wax noppi jàkkaarloo yow ni xujju xujjaara di la xool nga may xool nee naa dama sonnoon rek am ay borom nelaw di ko fay. su ma la waxee nga wax ba wër ma ne ma du dara ok kon bàyyi ma cons loolu problème léegi génne naa ko sama xarit sama seex sama doomu day li li nga wax moom foog ma def ci dara. kii nag mooy dadi xobbet xobbet yaa gis. lii moom. tu nga luy teel ñu naka. damaa damaa damaa ginnaaw lu bari sax mais xol li nga wax maa def nii yàlla nii aw comme xam naa fi kay te sama xarit moom nee na présenté ñu. on allah. incha allah na saxal si loo ne. waaw ci lan nekk ci njaay mbirum njaay rajo ak jabaram ji mu fase. njaay daal maa dem ba këram nee na doon foo fase jabaram. doon foo <laughs> fase kenn dina ko foowee. ak njëkkër njaay njaay njaay la ay ñun fu ñu jëm ak Ndiaye. moo ma jaaxal. yow xam na ngay def. te yaa moomay vent. on est d'accord. waaw. jarul wax bi di bari gaawal fay lampe bi te ñooy def sa manin ci man. lan sama manin. ah ñett xamul waaye ñaar xam nañ nag maag yow ah. yow arrêté la. d'accord loolu la ñuy def mais avant ñuy def dara damay wax sama ya. doléance ba pare te dama bëgg nga appliquer ko. yawwa mhm. Lala. la kon da chantage nii eh ne le prends pas comme ça nag du ay chantage oh, mais lan moo tax yéen bu ngeen jekkoo rek heure bii pareil heure il faut ngeen def ay chantage mais sérieusement eh tu sais bien que c'est le meilleur moment pour voir ces doléances. nag <laughs> mais loolu moi, chantage bi rek <laughs> vas-y on waxal ci le gars. ok léegi bii xam nga lan laa bëgg mm. damaa bëgg nga jëlal ma bon どい。うわ。nee na mi jëkkër gi nag. nee na daal moom jonk ana am affaire ak ñoom nee naa ko bu mu laalati sama yëf bu mu defati dara na ma xiddi fële donc dama bëgg nga wutal ma sama bon spécial pour man. d'accord wutal jànk jugal fay lamp yow ñu dem. loolu laay def loolu du ñu boole. man sax tey li tax man ah xamoo pour lan la. bii la. bu fayal jox. Doe aan, hm. Hm. Hm. het? Ik. Hm. Ei. Uh, maar En af hier. sa jong ma. def mu ba mu neex. yow la jàmm soriwul yaay. de bëgg naa ko. yàlla la indi de. sa néeg laa waaye ñëw léegi. Fatou Ndiaye laa bëgg a yónnee paas. ñëw ci kër gi. fan la Fatou Ndiaye jëm. xanaa fii dëkk ak ñun ci kër gi. ma xam nga leen Fatou Gueye duggam ci kër gi maa ngi nii la ñuy defante. waa Racky waaye ni ma bàyyee léegi polal la. ni ma la bàyyi ku may jàpp ah yow de moom ma muuree ma sëy ba tey jii nii li jënteetoo sax ci lu ma nekk boo gis nga Racky daa doon nga jot président Diomaye fay moo gën a yomb nga jot rakki <laughs> man rakki jaaxal nga ma. boo dee dox tamit bokkal sa saak sa sa poset bi ngay bokk def téléphone bi <laughs> ah waaye di wër kenn mënu la jot. man jaaxal nga ma ci loolu di laa nam ma ci loolu nii nii may maa. yaa ngi gérer ba mu baax. ah maa ngi nii de maa ngi gérer de. Hmm. waaye yow xam nga ne su ma lay gis daf ma yokk fit nag ndax man yaa may rassuré su ma lay xool sama xel day dal. ba pare ka fekk yi di wujjeeg moom nag yaa ko maîtriser nag kooku dama koo xam bu baax a baax a baax laa ko xam jeeg bu ñeme defante hmm. bu baax te ñeme sëriñ gis nga sëriñ da koo jaral lu ne waaye bis bu dof dofloo ba laal la hmm. dina xam ne daal na laalaate te géew li naan gaynde ga waaf te buntu kër ga ànd ak muus mu ndaw ma hmm. béyu am na jaay ba ko fa su bëggee kii bab laal la ay affaire de xaritoo moom lay xëcc ba tey man kii ay affaire am neexuma <laughs> seytaane sax daf ma jaaxal waaw moom mii luy problème lu muy xaar ci jëkkër ay ma yow <laughs> kii nga xam ne daa amee rab Fatou Gueye dafa war a wuti jëkkër dem sëy def nii nga def mooy dëgg ku la dégg ni ngay waxee ci faatu Gueye day mel na juróo ko te pourtant ni ma juree nga ko juree xanaa sax yàlla mën na def bu fi ñëwoon tey mu boole ko ak góor bu baax mu takk ko jëkkër fu ne lay jógee de góor bu dóorul fayiwul attewul xeex gisul sax nag ku daan mu taxaw ne da koy tàcc mbaa mu koy sar xolle yow mi ñaata temps mi ngi nii tàkk ko ma coo màdd jamboo daqaar waroo kaani yow daal dangaa toog rek nii rek bàyyi sa bopp nii est-ce que xam nga leen gis nga Paa Omar mi li yokk a tax mu takkal la wujj lii ci la bokk ndax bu sañoon day dégg ay jooyu liir ci kër gi mu koy énervé waaye dara lan la gis nga mbiru doom yàlla moo ko yor te bis bu ko tuddee sama jëmm ji kenn mënul tee du am yalla yalla bay sa fek dem lo def sa operation bi tàg do ma sa jël ëmb nga topal ma ci sungu fi yek reen yi ba kañ tàg demal nga def sa operation bi sagal sa jëkkat ji mi ngi ni nag nangu bay bëgg dé yor la yoralé ma kan mo nangootu loolu ci jamono ji ma wax la loo xam ne gis nga doom jay jooy ci kër gi man tàkku gi bi ma ko jurul benn jigéen du ko jur li concerne opération bi nag moom dinaa ci waxtaan ak Pa mais terewul de dinaa yónnee Fatou Gueye paas mu ñëw ci kër gi tàkku gay loo sentir ak looy bëgg a def def ko waaye xam nga lañ laa bëgg a dégg njaag nangu ma naan ko dina ko nangu macc na fi kaani yéy na fi xorom dina ko nangu kaagadu faatu Gueye nag moom déggoo li ma lax maa ngi moom ni nañuy def damaa bëgg jël samay maal daal di koy jig ñu naan ko njàng ma ne leen dina ko nangu di terle di terle su boba nga xam ne yaay ñu am bañ yaay soo paree sax nga defal ma ñaari kaas rek yu oyof ma naan ko sama bopp day ñàkk def la àdduna gër na yow am defal rek rab bona bona bona bon boo xam buy sir góor di daw sa ko ko yobbi sa xam bi maam ne faf sagal ci ko nag jot na de ba mu set nit ko xam ne bu ñu góor rek mu tëb yow sa problème. eh dimbali leen ma wax leen seen wax te ngeen génne ma ci dégg nga li ma leen wax. mooy sax baara ba nga màgget fi soo fi màgget dee dee xam nga ku lay tax ma kenn tax nañ ma bàyyi noonu. xam nga loo war a wax ci sa élément bi. jëkkëram jii di nelaw ñaari fan tawe yow ci loolu nga war a wax te ngeen bàyyi ma. Eh, loolu lijjanti ko ba mu tegee ko te. na ay nelaw. kay lan ñàkk ko fayda sax yow. mën na. qui va ko fii muy je ku nelaw ak ku nelawul neen du am jëkkër man ma dem wuti sama jëkkër bokk ko fi di ayo Envoyez de l'argent au Sénégal depuis l'Europe et le Royaume-Uni avec TAP vos proches reçoivent l'argent directement sur leur compte Wave. C'est rapide et il n'y a pas de frais de retrait. Chez TapTapSend, la sécurité et la rapidité de vos transactions sont notre priorité. Qu'attendez-vous Effectuez vos transferts maintenant. EBG Voyage. EBG Voyage, c'est des ventes de billets d'avion, attestation de billets, réservation d'hôtel, assistance visa, pré-inscription à l'étranger, Hajj, Omra, Ziara Fez, assurance de voyage et automobile. EBG Voyage. Nous sommes à Norfoire, à côté de Yum Yum. Téléphone 77 686 33 33 ou 33 801 98 14. Notre mail service.ebg.gmail.com